waa Macky ba léegi de yow la ñuy xaar il est six heures du matin à Ziguinchor mais ba léegi waa Ziguinchor yëpp yow la ñuy xaar kenn gisula kenn déggula kenn gisul say nit yow rek la ñuy xaar on t'attend ñun ba léegi nelawuñ duñ nelaw fii ak trois jours duñ nelaw ñun dañoo yar suñu bopp d'une façon boo xam buñ neexee toog une semaine duñu gëm a bët duñu def dara bu ñu neexee toog une semaine du ñu lekk du naan yow rek lañuy xaar xam nga Macky Sall doomi xaram kese moo koy bëgg yaa xam koo mënta doon boo bëggee Macky Sall doomi xaram nga il faut nga nekk doomi xaj dëgg dëgg dëgg dëgg il faut nga nekk un enfant des animaux pour que nga mën a bëgg Macky Sall pourquoi parce que Macky Sall tey diine l'islam moo ko njëkk a ok parce que bu fekkee ñun dañoo am ay kilifa yoo xam ne alxuraan lañ jàng ñu màggee ci alxuraan ñu xam yàlla dafa wax ni ku rey nit nañ ko rey donc Macky Sall fu mu toll nii dañ koo war a rey parce que dafa rey ay nit loolu la diine wax bu leen nangu ñenn ñi di leen nax ko comprendre parce que tey ñoom ñi ànd ak moom te ñu xam ne ak xam ci seen diggante ak yàlla que Macky Sall dafa rey ay nit ah? tey ñoom dañoo waroon raylu Macky Sall donc bu fekkee raylu wuñ Macky Sall ah parce que diine l'islam raylu na Macky Sall ba pare donc ñooñu ay doomi xaram lañ pour parce que seen intérêt lañ nekk di défendre moo tax ñeme wu ñoo wax Macky Sall dëgg parce que bu fekkee tey waa Ngor dañoo jóg dem laq këru far Farba Ngom xëyuñu rek ñu laq ko te est-ce que sa waa Ngor ñoo ko laq est-ce que sa amul waa APR yu ñëw làq ko ba pare accuser ko waa Ngor c'est pour rek ah torturer peuple bi quoi pour tiitloo leen quoi pour pour pour pour pour ñi ñi ragal quoi pour bañ génn quoi parce que après famille dañ naan seen doom bu leen génn dañ lay rey dañ lay rey ñoom psychose boobu lañ bëggoon andi ci bopp ñi ñi mais xamuñu sénégalais yi lu ñu déterminé parce que ñi ñi dañoo jéppi Macky Sall Macky Sall am na ay nit yu ko jege yu su bëri dañ koo détesté dañ koo jéppi mais mënuñu ko koo wax quoi. parce que bu fekkee am nga benn once d'être humain am na benn nité am na benn nité bu ndaw rek bu nekk si sa xol rek wala si sa ruu wala si sa bopp rek munoo bëgg Macky Sall boo ko bëggee rek doomi xat nga ko moom lolu il faut oser le dire nagn ko wax kilifa yi nga xamanteni dañuy téré booy ñu xeex seen droit xeex seen avenir préparer seen avenir hein ah. ñoo kilifa yi nañ dégg lolu il faut ñu dégg lolu ñoo comme ça ñu su bari tëj seen gat baña waxati bayu ñu ñun ñu gérer suñu life ak avenir boy quoi dañ koy gérer tuñu médiation tuñu journaliste buy wax affaire u magistrat médecin expert borom xam-xam marbu ya xam koo mënta doon te sa gat soxlatuñ tuñu dara parce que ba ngeen waree wax waxu leen wala ba ngeen waxee li ngeen wax waxu li ngeen wax waxu leen ko am tool nii amul rus amul bu leen kenn am patriote yépp nag laay waxal bu leen bu bu bu kenn bu leen kenn waar ba ngeen waaru parce que nit mënatu leen fi leen wax lum leen waxul woon nit mënatu leen fi wax lu ngeen xamul woon lu mënatu leen mënatu leen fi muñ yow lu ngeen muñul woon Macky daf ñëw pus buñu ñu ci mir bi fu mu toll amatul télo ginnaaw duñ ko may lu toll nii moom rek lañuy déglu mom rek lañuy xaar parce que lutax mané tay ak ku mënta lak kër Farba ngo xeyu rek lak ko amna lu ko waral légui Macky Sall mo wax Antoine Diom na envoyé force de l'ordre ñu dem Ngor donc fofu ku fa dé Macky Sall mo la donc Macky Sall reykatu nit la reykatu nit bopp kilifa yaa xam ci tarixa boo bokk war ngaa rus di ko défendre wala di wax wax boo xam ne nii da koy défendre nit ñi yeewu nañ xam nga Akhenaton Aton moom man dama ko doon blème lu bëri lu muy attaqué yenn kilifa yi quoi mais yenn kilifa yi dañoo ñàkk fula ko nit ñi dañoo nit ñi dem nañ ba nànd seeni dël nit ñi naan nañ seen i dil quoi amatu leen benn classe ci kanamu nit ñi kenn faaleetu leen defalu leen dara nit ñi yéen bi ngeen juddoo ba léegi dañ leen a yor nit ñi ñoo leen di jox xaalis bu ngeen lekk bu ngeen dundee bu si la seen njaboot yi du dund waratu leen sa wax loolooy dëgg wax ji nañ ko wax dee benn yoon ku ñu si saaga saaga ñu ku ñu ciy mere mere ñu ku ñuy ñëw sa rey si rey suñu rey suñu amul problème il faut il faut ñu xam ni la woon nekkatul la woon nekki na complètement affaire bi nii tout continuer c'est impossible ça peut plus continuer comme ça Sénégal tout continuer ni mënul nek loolu il faut Macky Sall xam ko Macky Sall man xamna ay nit joko ko trop dañ ko détester fum mu c'est que il les dégoûte c'est que dafa dégoûter nit ñi quoi parce que nit bu normal du def lii muy def kenn du xeex ak ce peuple kenn du toroxal ce peuple kenn du toroxol sa peuple dictateur yi ko fi defone yep gis nga fiñu mujjé té boy bu ndaw nga mon nga gouverneur normal jogé fi dem sa yoon quoi ñu tàccu la nga nek ben lay ngand héro wu Sénégal ñu lay jang ci école yi mais yow ku la ku tuddu sa tur saaga sa nday do bok ci histoire u Sénégal yow ba ngay dugg bir souf on va continuer de saaga sa nday dañ lay bañ parce que dam ñoo toroxal te lum lu li gëna ser ci ci mom yow lolu nga laal jël ko bëccëg sandi def ko mbarit moy iman moy ru, moy bakkan duñ la may lu toll ni ndayam duñ la ko may yow ak ko andal nak fait très attention yeen ñep ñi nekk di défendre makki ak ñi nekk ñi ànd ak Macky tu len bu baax peuple bi mere na len comme pas possible ay journaliste yu mel ni ay Cheikh Yérim Thiam doomu cott ndayam boobu waaju katt ndayam kooku noonu ñooñu nañ moytu quoi moytu leen bu baax yéen a xam lu ngeen ku ngeen mënta wóolu sëriñ bu ngeen mënta wóolu bu leen wax ne def leen lu leen neex dara du leen dal day katt ndayam dafay fet amul man Ousmane Ba maa ko wax Macky doomi xaram la il faut oser le dire c'est un doomi xaram sa yaay doomi xaram la jur parce que li fi li nga def sénégalais yi amul benn président bu ko mus a toroxale nii sénégalais yi yow Abdoulaye mënoon na kat sa ndey ci kaso bi mais defu ko comprendre nga yow nga téye ñu ñi di jàpp di tëj yaa may déglu man man xam ne danga may déglu man j'ai des éléments yoo xam ne yow chaque jour ñu ngi yow la ñuy yeewandoo comprendre nga man je sais danga may déglu danga may déglu force danga may déglu qu'est-ce que tu veux toroxal sonko dama nga lal ko mu ngi zek lal ko avant sa arme yépp ñun dem nañ ko jëm jëli dem rombu len buntu kërëm rek waxuma sa ngeen lal ko mais yeen rombu len buntu kërëm rek gis ngeen la fa nek ci mbolo lo xam amul ben sénégalais bu sénégalais musa protéger amul marabu yi sey nga xam tuba bi bi mu ñëwee di len jël si sénégalais protéger wuñ ko c'est la première fois dans l'histoire du sénégal ay sénégalais jog pour dé pour ben nit Lorsque rek ça devait t'interpeller bu que tu es intelligent loolu rek daf la waroon interpeller doomu Kumba Timbo doogaat yow non pour yow réussir nga quoi parce que lii pour nek président moi moi réussir nga quoi président criminel man bi genre présidence bugguma ko comprendre tu dégoûtes le peuple sénégalais amul ben sénégalais bu toll nii bu am respect ci yow balaa nga ko doon xam nga génn yow rek di dox ci mbedd mi sans garde corps sans rien du tout doo def deux heures de temps ci kaw suuf loolu dafa ñaaw Paul pour Paul Kagame bu ko neexee dox moom rek am na président yu bëri ci monde bi bu leen neexee dox ñoom rek ci mbedd mi sans garde corps kenn du leen laal ñëpp leen bëgg seen peuple dañ leen a bëgg mais yow amoo fitu dox rek yow même boo demoon ba perdre pouvoir bi sax même à l'étranger amoo fitu dox nee naa la dafa am ñaari mbir ba ñetti mbir yoo xamante ni bu buñ la weddee rek bu la bu yeboo nga nga démissionné nga xam ne sa présidence du neex du yomb première bi mooy sa jeunesse da ngaa jël sa sa jeunesse sa jeunesse su pays nga jël leen nga def leen rival nga jël leen nga def leen ay ennemi nga trox leen ok sa diaspora wu dëkk te Sénégal neexul ba neexul diaspora bi ñoo yore Sénégal dañu quoi du ñëpp mais là je parle de la majorité et c'est la majorité qui compte la majorité au Sénégal diaspora bi buñ téye seen loxo musiba am léegi yow ñooñu nga jël nga toroxal am ci bi dem ci diaspora bi parce que diaspora bi da ngay ñëw sénégalais yi saaka sa ndey ci kanamu policiers yi yu xoola doo ci mën dara mënoo ci tëj kenn mënoo ci dóor kenn mënoo ci def kenn dara te même ci dëkk biñ nekk policier du leen laal kenn du leen laal parce que loolu ñu lay wax constitution wu dëkk boobu da leen ko permettre ñu su bëri ci ñoom dañ fa am nationalité dañ fa am ay kayit munoo si ñoom saram ndayam chaque jour ñu saaga sa ndey barki dem Londres benn femme xale bu ndaw moo saaga sa ndey buux ndey sa garde corps munu ca dara ci kanamu policiers sa hôtel pour te dire rek loolu ngay jéem a def sa dëkk c'est révolu genre dictateur boobu dafa xawi depuis jamonoy mobatu comprendre nga maintenant on parle de développement on parle de de de de de artificielle d'autres choses on parle de de développement quoi on parle de dem ci hein. on parle de quand bi nga primaire école francs 200 francs pourquoi Sénégal la parce que yow suñu développement ci yow lañ ko yaakaaroon quoi Gambie sax mu ngi ñuy devancer doomi xaram nga këpp ku ànd ak yow doomi xaram la képp ku d'accord ci li ngay def nii doomi xaram la kenn bëggatu la kenn respecteetu la kenn nawlootu la donc yow rek ay choisir yow rek ak sa gouvernement sa ministre say say say gendarme sa Moussa Fall sa sa sa sa sa sa Antoine Félix ci ñàkk jom yéen rek la ñuy xaar xaaruñu keneen bëggutuñ leneen bu la neexee sax bul organiser présidentielle ñun yow rek la ñuy xaar yow rek yéen kese dong dong ak say magistrat ñu ubbi seen cott ndey yéen ñëpp benn par benn man maa la ko wax le peuple est prêt pour mourir gis nga première vague bi vague bi mooy raw Palestine ak Israël bàyyi ci xel defal très attention man maa dellu si waat man Ousmane Ba Gotham man maa dellu si waat Macky moom rek la xaar moom rek la ñuy déglu fu mu toll nii te tey suba ak gannaaw suba moo ci yem fii ba élection présidentielle di jeex duñ leen may lu toll nii suñu nemmeeku tuur dañ koy def bu su ko sa police wala gendarmerie perturbé ah na la leen tëkk bi di daan takk duñ leen may lu toll nii bu ngeen ñu déranger une minute ñu dal seen kaw fu mu toll nii dañoo pare pour dee boo yëpp pare nañ pour dee coordination yëpp def nañ seen réunion démb ci guddi comprend nga coordination yëpp réunion nañ te boo yu nekk tey ñëpp attendre coordination yi bi réunion yi dafa fes dal partout sa RG yi war nañ koo xam booy pare nañ booy pare nañ ko yéen rek la ñuy déglu gis nga sa police wala sa gendarmerie wala say magistrat ku ci dof-dofu ba def erreur bu toll nii xamal ne dëkk bi booy na bu dee nag da ngaa wóolu say force de l'ordre wóolu say arme yi ngay jënd ak tout loolu yow yaay choisir ko mais fu mu toll nii patriote yëpp pare nañ di nga gis ci benn kër kii nekk bokk Pastef kii bokk APR e ñu rayante ay ndey ci biir kër gi dañuy rayante ndax politique. te loolu benn politicien moo ko waral mooy Macky Sall Ousmane Sonko deful dara tooñul kenn tooñul kenn Ousmane Sonko tu sais man dafa am lu bëri loo xam mënu ma ko wax quoi parce que ñi muy blessé dina bëri quoi mais il pouvait faire comme les autres comme la majorité ay sàcc sàcc ay alal dëkk ci kër yu rafet comprendre nga te sol lu rafet te dawal oto yu rafet di doxaan ay gel yu tooy di leen financé di voyagé di dem fu ne am na si ñoo xam ne ni am na si ay collègues am yu bëri yoo xam billaahi xam naa si ñoo xam ne chaque semaine ñu dem seetaani Real Madrid Madrid la ñuy dem Espagne parce que ay supporters Real Madrid lañ te ay simple inspecteur et domaine lañ fa lañ amee xaalis boobu fa lañ amee xaalis chaque semaine wala chaque deux semaine ñu dagg bi billet jógee Dakar dem Espagne seetaan seen équipe hôtel bi ñuy tëdd lekk ñuy lekk shopping yi ñuy def billet bu ñuy jënd c'est de l'argent loolu xaalisu réew mi la ay sàcc lañ dañ leen a xam Ousmane Sonko bu ko neexoon mu continuer liggéeyam na tekk am salaire bu bien ñu koy corrompe muy jël xaalisam di def ci poosam dëkk fii gën a luxe si Sénégal lekk lu neex di voyage di dem fu ko neex di am ay promotion def comme ni yeneen doomi xaraam yi di def ko ne jëfu Sénégal ak jëfu sénégalais yi sama yoon nekk su ñu dee ak xiif na la xiif rey ça m'intéresse pas mais la gars di défendre les intérêts des sénégalais c'est-à-dire l'intérêt collectif l'intérêt commun la nit ñi bokk lay défendre loolu moo ko loolu moo ko yóbbee li ko dal nii yëpp quoi donc ñun la doon liggéeyal ba li ko fekk fekk ko donc ñun suñu responsabilité la ñu défendre ko en ce moment responsabilité sénégalais yépp la mooy nag sénégalais yi nga xamante ne laa la wax te la majorité ay baadoola lañ amuñu luñ lekk mu muy xeex pour nga am loo lekk yaa ko lëb lu ko ci fekk yaa ko war a défendre c' est que Macky Sall mooy comme li wax sànq bu amee conseil yu baax wala mu am tuuti sel wala mu xam histoire Sénégal dafa war a xam li nekk di xew ne musul xew ci Sénégal amul benn sénégalais bu Senegal amul ben sénégalais bu ci histoire Sénégal bu sénégalais yëpp nek buntu këram pendant 3 jours diko défendre contre les forces de l'ordre amul c'est la première fois dans l'histoire Ousmane Sonko lañ ko défal ño xamé paré nañ pour ñak sen bakan pour Ousmane Sonko loolu rek waroon na interpeller Macky Sall mais il est mal conseillé Macky man xawma lan moko metti quoi mais amna vraiment lu ko metti lool nak lañu wara lijeenti léegi bu dee pauvreté bi mu dund bi mu nekkee xale ak bi muy màgg loolu moo ko met mais loolu na ko kalaame yàlla loolu sénégalais yi teguñu ko ko te loolu mënatu ci dara parce que lu paase la loolu lu passé la ko loolu mënatu koo changé loolu tey bu amoon bu nekkoon nit bi gën a riche ci kaw suuf loolu mënatu koo changé am na tâche yoo xam bu xasee ba taas même boo ci defee ordre javel du dañ ça reste à vie tâche boobu nag bu fekkee loolu moo ko metti loolu ñun teguñu ko ko ñun on a fait notre mieux pour jox ko nguur bi pour mu développer ko parce que on croyait que c'est une personne intelligente mais Macky moo gën a dof sur terre parce que li muy def même ku kanosu sax du ko def moom am na dal soit am na benn ay dépression yu mu am wala am na lu ko metti loo xamante ni loolu lay jéem a récupérer loolu lay bëgg a fayu loolu la bëgg dafa mel ni pauvreté bu mu dund la bëgg majorité sénégalaise yi dund quoi mais loolu mënul nekk nit da ngay gëm yàlla Macky ku waroon baax la ku waroon baax xol parce que dafa dund lu yéeme dans sa vie ku waroon bëgg yi la ku leen waroon déglu la ku leen waroon yërëm la ku leen waroon jàppale la ku waroon développer ce pays la mu resté ci xolu sénégalais yi parce que amoon na possibilité bi mag Macky xoolal biñ liñ ko bi ñu koy fal ñëpp kontaan ñëpp a dem votal ko ñëpp a ko protéger comprendre ñëpp a tàccu c'était la première fois Sénégal yëpp génnandoo di tàccandoo bi résultat yi génnee mais chaque année rek ma Macky gën ñu bett ak ay mbir chaque année rek ay scandale chaque année ay sàcc chaque année ay détournement chaque année ay emprisonnement chaque année ay intimidation chaque année léegi nag ay crime lañ ko def crime yooyu nag lañ dul nangu duñ ko accepté duñ ko accepté duñ ko nangu mënul nekk moo tax ma ne leen policier bu laal policier bu ngeen xamee mu ray sa mbokk nday mo la nga ray ay mbokam je le dis haut et fort mun nako lak ci sept lak huit lak bu ngeen beugé aw ma lu moy neub man man fi autorité xam nañ sama adresse xam nañ fan la dekk limay wax amna ay ay ay ay ay ay ay ñoo xam police lañuy ñuy ay sénégalais yu nekk fi police lañuy ñuy liggéeyal xam naa leen ñoom ñooy traduire affaire bo boo ci tribunal yi traduire wolof yi ñoy traduire peul ñoy traduire li fi ñu ñëpp di wax man ragaluma len leen len man amatul lu may tiit dama fii man amatul benn doomu adama boo xam dina taxaw sama kanam malay lay lox amul lu ne gis naa ko fu ne dem naa fa lu ne dégg naa ko lu ne vivre naa ko amatuma dara lu may tiit ci kaw suuf faaleetuma dara lu dëgg rek dëgg lu dul dëgg du ma ci dox man dëgg rek dëgg rek li des ci sama vie lépp nii laa koy def dootuma def lu jubadi si sama life def naa li ma doon def yépp dund naa ko lu ma doon vivre loo xalaat def naa ko li si des moom nii rek nii nay jub rek nay clean nay jub rek di sat te jël naa sama baqan may ko sénégalais yi wax naa leen ko ba tay comprendre nga moo tax ma ne leen Macky bu xamul liñ liggéey si suuf si dernier jour yi génn ah, dina reculer bu waxuma la reculer mais dina reculer ba jaaxaan ba daw parce que fu mu toll na ñépp a pare pour dee te mënul nañoo bañ a yegg foofu mënoon nañoo bañ a yegg foofu mais dafa ñam mu neex gars yi defuñu dara xam nga première attaque bi ñu attaqué Sonko ba xëcc yére bi nii ba xotte ko waxoon naa leen loolu waruñu ko woon accepté ñu demati ñu dóor vitre Sonko bi ma génn wax li may wax après Sonko ci boppam sax moo génn ne force l'ordre dañ ko doon jéem a protéger mais après man nee naa ko erreur la def waru woon wax loolu parce que force de l'ordre yi force wuñ ko c'est après qu'il a compris li ma ko doon wax parce que ñoom noonu la ñuy def quoi dafa am benn système bu leen israélien yi jàngal comprendre nga toujours dafa am kuy tàngal ba mu tàng ak kuy seddal ba mu sedd ko léegi nag am na nu muy demee rek da leen di déglu fekk waroo loon déglu équipe la dañ leen a formé pour loolu ñoom ñaar ñoo bokk benn objectif l'objectif c'est de te troxal wala de jàpp la wala de te convaincre wala whatever c'est sama stratégie la quoi loolu police yëpp a koy def presque gendarme yëpp ci monde bi dañ koy def armée yëpp dañ koy def nii li agent yi nekk même agent sécurité yi ci pays yu développé dañ koy def da am léegi problème ak benn policier benn policier bi santé trop trop trop trop comme pas possible beneen policier bi bon comme possible léegi dañ lay tempérer ko fekk yow si sa droit nga nekk mais après sa da ngay rus sa xeex ak beneen policier bi bi mais à la fin dañ lay sa yóbbu parce que ñoom objectif bi mooy nañ la yóbbu rek Je boobu lañ ak mom ba toj vitre amul do négocier un bandé quoi bandé kenn du négocier ak mom bande bu la duxuree da ngay fayu ñu dem Sénégal un pays ak xolal ak acquis démocratique biñu am pendant des siècles suñu kilifa yi fi jaar yépp liggéey liggéey bu extraordinaire Sénégal nekk pays bu ñu gën a en Afrique comprendre nga. da nga daan tukki ay jamono ma bi may teel a jógee Sénégal ay plus de vingt quatre ans ci ginnaaw vingt cinq ans ci ginnaaw bi may jógee Sénégal boo ñëwee Europe boo nee Sénégal nga di tubaab bi dañ naan oh Abdou Diouf ñëpp a ko respecté ñëpp respecté sénégalais doo dégg benn sénégalais bu def benn tooxi doone en Europe amul ça n'existe pas du ñu agressé du ñu sàcc du ñu fen du ñu triande mais bi paas commencé yomb. nga xamante ni booy nekkoon Colobane ak foofu commencé jël gaale di dem Espagne xam lan lañ fa def lañ daan def Sénégal moom mooy di agressé di sàcc di di foqarti pour euh, saagu tubaab yi ak di di di di di rey sa tubaab yi loolu lañ fa commencé def ko quoi pourquoi parce que Sénégal neexatul parce que nit ñi jàngatuñ parce que télé yi waxatuñ lu xam dafa yee nit ñi rajo yi waxatuñ lu yee nit ñi parce que ñu si bëri ñu ngi am ay doom fu ne xamuñu seen doom yi kenn yarul yarul xale yi biiral fii ngénte fii takk fële takk suuf fële affaire dëmm yooyu ko comprendre nga donc da gis xale yu bëri dañuy màgg amuñu papa amuñu yaay amuñu ku leen di guider amuñu référence comprendre nga liggéey amul booy lu leen neex lañuy def amatuñ jikko bu bien loolu la ñu yóbbaale bi ñuy jëlee gaal yi tukki dem Sénégal dem dem Europe ñu si bëri moo tax léegi Séné boo ne soo nekkee Sénégal da ngay laqatu ñameetoo wax ni sa Sénégal nga muy Amérique muy feneen a feneen Sénégal yu bëri yu ñëw Amérique fële États-Unis ay sàcc ay oto lañ fa def bañ jàpp leen. ñi di def ay deul bëgg xaaliss bu yom bëgg solo fi dem sénégal so solo fi ngent fii dawal ranjorofa fi dawal fek alal bu katam bayam nga yor bo xam da nga koo trianda da nga koo teg dil da nga koo canada am nañu ko fi commencé yàggutul xam nañ leen ñepp xam nañ leen mais kenn ñamul tuddu sen tour légui sa seen sénégalais lañ fi nekk di biral ak yu kenn xamul sen jikko yu ñàppandaayam yoyu lañ fi andi comprendre Europe moom waxe noppi yéen a ma gën a xam la fa xew loolu yëpp éducation la éducation bi bu baaxul foo dem da nga koy yóbbaale comprendre nga léegi bu ñu waxee nga ne nañu wax waxee bi mu rafet wax bu noo ko wax mu dëgg munoo ko wax mu rafet ci dëgg bi ngay jaar ku bëgg jël ku bëggul bàyyi ñun saxaluñ lem kenn pour mu déglu dañuy wax bu lay intéressul fayal sa téléphone demal feneen soxlawuñ sa say commentaire wala say explication loolu mooy dëgg toolu duñ fu ñuy négocier fu mu toll ne amatul négocier dañuy wax wax bi niñ ko bëgg a waxee ñu wax ko ku bëgg jël ku bëggul bàyyi ko comprendre léegi nag ñi yàq Macky Sall ñi yàq Sénégal mag Sall si la bokk parce que président de la République dañ laa fal pour nga xool chaque secteur domaine bu nekk nga régler ko wala nga jéem ko régler wala nga am loo fa def mais scandale rek sàcc rek détournement rek quoi donc je l'ai dit l'autre jour ma ne ça fait pile de trois mille personnes yoo xam dañoo sàcc alalu Sénégal ñi ay magistrat lañ ñii ay ministre lañ ñii ay ancien ministre lañ ñii ay directeur agence lañ ñii ay directeur de société lañ société publique comprendre nga ñii ay ay ay fournisseur lañ ci ci ci ci ci ci gouvernement bi ñii dañ leen jox ay marché ay chef d'entreprise ñu jox leen ay marché yu yu yu nébuleuse woo leen conté ñun on a une moo xam boo leen compté on a une liste quoi seen tur seen photo ak ak scandale ak lépp nga xam mu ngi si loxo yi mu war a nekk quoi boo leen compté billahi wal kitaabi billahi ëpp nañ trois mille personnes léegi ñooñu ñooñu Sonko dem kaso moo leen arrangé ñooñu Sonko dee moo leen arrangé ñooñu ils sont prêts pour rey Sonko parce que ñoom xam nañ ni Sonko bu jëlee pouvoir bi ñoom ñëpp dañuy am problème pourquoi en tant que un inspecteur des impôts domaine kooku xam na ban immeuble kan moo ko moom xam na ban terrain kan moo ko moom xam na ban kër kan moo ko moom xam na naka lañ ko amee xam na est-ce que alalu askan bi wala du alalu askan bi dëgg la wala dëgg un docteur en économie Sonko kooku xam na lan mooy xaalis xoolal dañoo créer seen banque de dakaar Alioune Sall moo ak ay partenaire foofu lañuy ñuy jaarale xaalis bi ñuy sàcc Sénégal yépp fa lañuy ñuy jaarale mooy seen banque privée boobu noonu ay sàcc lañ bu leen ma waxloo man xam naa sa kaa computer de du ma tudd tur nag mais su ma waxee rek musiba am parce que am na loo xam maa ngi koy wax si suuf te ñoom ñu ngi koy sentir bu baax am na loo xam maa ngi koy def si suuf te ñoom ñu ngi koy sentir bu baax a baax mu ngi laal fu metti mu ngi yàq lu bari moo ma leen di wax man laay fi may def ni sa pour benn groupe de personnes sénégalais rek laa ko defa pour ñu xam li nga xamantene mo xaw mais xex bi deug si souf lañ koy def te ñu ngi leen di gagné ñu ngi leen di gagné quoi ca ñom xam nañu ñu ngi leen di gagné lool moo tax ñu nerveux fu mu tolné ils sont très nerveux wa APR yi yeen rek lañuy deglu yeen kessel lañuy xaar billahi wal kitabi, soxlootuñ lenen amutul amutul amutul wax ay ngeen wax ñuy commander sa di leen di leen jéem ki fu mu toll nii seen patriote ñep tek lañ def te silence mo gëna dangereux lo gëna gis donc yéen kese lañuy ñuy xaar Ousmane Sonko gis nga mardi procès bi ñoom ils ont intérêt ñu renvoyer procès bi wala ñu juger def non lieu affaire bi jeex Sénégal jàmm dellu si fa ko ñu bàyyi ko mu def tournée politique am nemmeeku tuuram bi. journaliste yu naafeq yi bàyyi seen affaire doome xaram yooyu mais nag Sénégal il faut ngeen dem xool ñan ñooy journaliste yi xool leen billaahi def leen remarque ngeen dem xool ñiy wax ci télé yi ñu su bëri ànd ak Macky Sall ak ñiy wax si seen site ànd ak Macky Sall dem leen ngeen xool si yan famille lañ bokk xool leen lan mooy seen baaxu maam ñoom ñu def leneen lu dul loolu parce que loolu la seen papa doon def loolu la seen yaay doon def loolu la seen maam yi doon def c'est dans leur sang noonu la ñuy deewee Non lañuy déwé tag ay nit pour lekk lool lañuy def comprendre nga fen pour lekk lool lañuy ñuy def combine bëre pour lekk lool lañuy def c'est dans leur sang lool lañ xam xamuñu leneen donc ñooñu buñ nekkee di def lu sen sen maam doon def kèn du len ci waru len ci mere sax il faut les comprendre mais l'importance moy nga bañ leena déglu quoi bu len déglu quoi parce que bo len dégloo dañ lay influencer wala sax ñu mer loolu quoi sa xol tàng quoi te le cinq mille yooyu sa xol di tàng rek perdre nga temps bu bëri quoi jaruñu ko ko ñoom te koo ci gis mu toog di soo fekk xamuñu dara li ñuy wax yëpp ay fen la maîtriser wuñ ko léegi nag ku mel ne man <laughs> du leen neex parce que man xam naa seen jeu moo tax rek la ñu contre man rek la ñu bañ faala wu ma leen parce que ñoom fayuñu sama loyer fayuñu sama lekk fayuñu sama na joxuñu ma dara mënu luñ ma defal dara kooku man munu maa wax lu ma metti wala lu ma intéressé man ki may jox ma lekk sa su ma waxee lu ma war tax ma saaga ndeyam ma laa keneen comprendre nit da ngay gëm sa bopp comprendre nga da ngay gëm sa bopp quoi respecter sa bopp d'abord pour ñi ñu mën la gëm man la respecter quoi pour nga gëm sa bopp comprendre nga voilà léegi daal euh, amatul négocier ko ñu ñoom rek la ñuy déglu ñoom rek la ñuy xaar ñoom ñooy choisir ñoom nuñ ko bëggee rek noonu lay demee amul benn problème mais nañ def seen biir bopp que dootu ñu leen may lu toll ni pepp suuf que force dañuy def suñu nemmeeku tur que force fuñ bëgg a dem dañ fay dem on va porter nos t-shirts ñëpp xam ne ñi ñooy waa Pastef comprendre nga dem leen fu leen neex vous êtes des sénégalais wax leen li ngeen bëgg a wax li ngeen wax na nekk dëgg.

vuoi respire noi kan war leen tere nooyi c'est-à-dire yéen man li ma leen ko mooy nekk leen ci dëgg wax leen dëgg def leen dëgg le reste ku amul ma demb amul ma samba xeex leen loolu yenente bi dafa xeex ba kanam la ci tek agai ay nitam ak ay saxaaba moo tax tey ñun ñëpp ñu mën a nekk la ni sinon duñ nek tey lu ñu dañ ko xex togu ñu rek mu yexi dañ ko fight seen mbokk yi bañ leen ci nit ñi bundu xatal leen nit ñi tegal leen ay pièges nit ñi toroxal leen saxaaba yu bari dañ leen fekk ñuy julli ñu rey leen te ñi leen rey ñu si bari ay nit yu leen jege won lañ moo tax moi quand je disais les traîtres ñu ngi jege Ousmane Sonko ñëpp di ma saaga naan dama yàq naan ma ki lay liggéey naan patati pata et pouvez pas comprendre fu may waxee mais ñu su bëri léegi ñu ngi comprendre ko sama waxin changé wul dama waxin mosul changé dama ko doon waxee rek laa koy waxee def naa fi nag ay stratégie yoo xam neexul ay nit mais ba léegi ñoom ñoo xam je m'en fous mais man lépp lu may def xam naa ko je suis constant depuis le début ba tey li may wax laay wax li may def laay def te dara du ci changé nag kenn mënu koo changé dama gëm lii may def nii man dama gëm sacrifice bi may sacrifier sama vie pour Sénégal parce que man ce que j'ai vu dans le monde c'est possible au au Sénégal c'est possible dans mon pays volonté rek la laaj ak ay vrai patriote yu bëgg Sénégal gëm ko te nangoo liggéey gis nga Ousmane Sonko maamam bi jur yaayam sow la sant olay sow déggul wolof kooku Fuuta la jógee dem sëy xombal mu sëy ak benn séeréer bu sant Ngom ñu jur ci xadi ngom comprendre nga xadi ngom après dem chess mu xamanté fa ak papa Ousmane Sonko ben jola bu sante Sonko ñu sey mu am ci ko koy Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko xal pular la serer la jola la wolof la koku xetu senegal yep la bolé ci dereetam ngén foo ne loolu hasard la du hasard lolu yalla mu ngi ko doon préparé yow yalla mo nam mu né xet yi nga xam mo composer senegal pratiquement quoi damay tibb si sen deret bu ci nek ma tibb si sen deret ma def ko ci bir waji comme ça ku si nek santer si sa bob Ousmane Sonko le may wax ni du ko weddi na video video wu mamam moom yor nako xam na lu vidéo bi may wax na ko teg sénégalais yépp teg ci seen bët mu confirmer li may wax donc yàlla moo tibb deretu sénégalais yi def ko ci benn nit ba pare def ko mu jub ba pare def ko mu jub xocc yàlla di ko teste jox ay possibilité moom mooy mu def ko étudiant bu xarañ def ko mu génn major ci promotion am ENA def ko mu nekk inspecteur impôt domaine def ko mu toog ci poste boo xam c'est lucratif bu ko neexee lekk lu ko neex yàlla di ko xool di ko tese comme ni yàlla doon tese yenente bi comprendre nga waa ji tey loxom tey xelam tey xolam tey léppam jubal teg lépp ci yoon mais kooku arrangé wul kooku arrangé ñi jubati ku jub arrangé wul ñu jubali moo tax ils ont tout fait pour écarter ko fekk xamuñu ni seen musiba lañ doon écarter Macky noppi noo la ñëpp ba mu des benn nit mooy Ousmane Sonko amul keneen koo xamante ni yaa ngi wax ba léegi ñamee too wax ñu doon wax ñëpp ñi jox na leen ay puub ñu lekk ñi mu jox leen xaalis ñu lekk ñi mu boole na ak ay jigéen filmer leen ñu si bëri ñameetuñu wax wala booy wax ci faveur am ngay wax imaam yu bari xam-xam ñu mel ni ay mu buso ok seen xam-xam jëriñul Sénégal Maram Faye Sall rek lay jëriñ parce que Maram Faye Sall moo ko jox xaalis di ko dugal ci jet privé yóbbu ko màkk wërloo ko kaaba bi juróom-ñaari yoon ba mu meer mu may ko ay million kooku fu mu la wax nga xool foofu ngay xool mais seen genre de personne là qui pense que dañoo am ay maamu walewu fekk duñu saram ndayam comprendre nga parce que même boo amee maamu yenente sax té yow amo iman bi sesamam, ci sa mam dafa mel sepa kooku du sa mam c'est pas parce que yow setu diw nga rek que yow diw nga dédé c'est pas parce que setu diw nga rek nga xam nga limu xam wala mën nga limu mën wala li nek ci mom mu ngi ci yow amna lo xam yow ya koy choisir sa bop sa mam dafa choisir dessin am c'est vrai que amna lu ko euh cëral mais lis des mom moo ko choisir mom mo bëgg def lolu mom mo def ay sacrifice pour peuple am yow defoo ko yow sacrifice personnel nga def ñu lay ñawal ay jazner de la taklo ay fer jox la beeco de la lëmbaloo en tant que imam nga bëgg ñun ñu respecte la duñ ko def faale wuñ la xam nañ la sax xam nañ li nga def New York ak New Jersey fa la ñu fekk New York la fekk waaw du ko weddi tu vois donc à la da ngeen di yeblu sax ci xeet bi ngeen bokk da di yeblu sa seeni maam yi quoi ngeen di yeblu te lu lu rëy lañ def ci réew moomu dangay am dangay ngay am fulla am fayda am gëm sa bopp xam ne loo mënul defal sa bopp kenn mënula koo defal ci kaw suuf Lu nyakenet ngenek si siti aso ñi la wara jappalé jappalé la ñi ko sekkal muy say frère peut-être say sœur peut-être say xarit peut-être say dëkkandoo peut-être ku mënta doon quoi mën a nekk sa jàmbur loolu dal ku ne comprendre mais am na loo xamante alal duku ko jënd moo xam yow yaa koy may sa bopp parce que yow ya koy si sa bopp loolu c'est des choix quoi man ñëw naa Europe ànd ak ay nit xam dañuy su ma neexoon jaay drogue comme ñoom mais defuma ko ñu su bëri si ñoom ñu ngi ci kaso bi ñii dee nañ yow naa Amérique ay nit def ay crédit carte di am xaalis bu dul jeex ñii di sàcc ay oto di jaay ñii di jënd ay oto yu ñu sàcc di jaay ñii di Europe am na ay jamono ay téléphone boobu boobu cellulaire amul boobu ay kabin ngay dem comprendre nga ci waa wala nga gis ñoo xam ne dañoo xewal xewal lañ ko daan tuddee nga leen di fay ci ay ligne jàmbur lañ koy branché ay mu ay ligne grande entreprise roumain yi ñoo la koy jaay wala napolitano yi bu fekkee Italie ñuy wër ci kër Modou yi Modou di leen jox ay lira nga ñu lay branché ngay woote ay quelques minutes jamono boobu loolu moom whatsapp amul dara ay telegram dara amul comprendre moom naa ko def mais xaalis boobu ngay jox sa yaay. jox sa pap jox sa dom ñu lek ci dread nga leen di jox ñi ci tabaxone ay kër ay immeuble Sénégal immeuble yop daanu na ndayam ñi ñak nañ lepp dug nañ ci ay toxu denn justice nangu ko parce que lawul baaxul amna lo xamanteni aduna ni jaru ko taw bay daanu pour lan sénégalais ñom pour ñom bo gaarul ay Mercedes ay ay ay Range Rover tabaxo R plus ka réussiro fekk du lolou moy réussite happiness moy réussite moy nga heureux nga tedd nga nalaw lolou moy réussite bu len kenn gondi tuba bi yaangi ni dañuy dund dund bu neex ñi ci am kër wul fo fekk 1000 tubaab ñaar ñoo ci am kër te pourtant dañuy dund bu am 80 ans ñu ci bëru duñu fanaan ci mbedd mi si kër la ñuy fanaan donc loué am problème bo amé mais sénégalais dañuy def seen bop ni ya force da nga wara am kër quoi force da nga wara am ay auto quoi force da nga wara am ay jabar quoi force da nga wara am li da nga wara am ay doom force da nga wara am lepp fene la loolu yëpp waro ko am du obligation quoi c'est pas obligatoire yow amul vie bu sain une vie très saine loolu moy réussite in vi sen nak du sangu ba set rek sol yoro rafet ak lek lu lu neex wala lu set d'abord ci iman bi la ci xol bi la ci ruu bi la ci xel mi la ba lenen lu ci top top ci léegi lan motax Sénégal un petit pays bo xamanteni ñepp dañu bëgg politique jeune bari sen lepp ci politique lañ ko wékk top ben politicien rek lu ya, ya, ya, mu wax li ci deug ak lu ci nekul deug yam ñu wax ñu taccu teug ay tama ndong ndong ndong ndong ndong ñu may la fi 50 man may la fi cent nga am dom tuddee ko xukaa pour xaar mu jox la ben pos tuddee ko sa bay tuddee ko sa grand frère tuddee ko sa sœur ndayam pourquoi nga koy tuddee ay ay politiciens pour lan parce que am na loo yaakaar ci ñoom ñaax gëm sa bopp la léegi kooku man dina nekk ci Facebook di def ay publication di expliquer ma koy ma koy liir wala su ma waxee muy am lu mu ciy weddi kooku du sama nawle kooku nawloo uma ko Sénégal dafay changer par la force te kenn mënu koo changer ku dul ñoom il faut am ñu sacrifier seen bopp sacrifice bi nag quand je parle de sacrifice boobu mo la dëng ray sa bop da mën nañu sacrifice suñ bop te kenn du ci dé ku ci wara dé dee tamit nga dé ci am problème lo ci mën bu fekk yalla fofu la wax fofu la sa dé di jaar lo ci mën mais da fi joggé ta bakkan du rot ma la ko wax force fi joggé ay imbécile yu melni ay ay ay Khalifa Sall at ma leen wax Khalifa Sall mom moy moom moy Gloria ngeen saga ma fi wax ma fi lu ne ngeen ko ne Barthélémy lim li mu di def ne yeb kan moo ko commandité Barthélémy jaar Khalifa sa rero wuñ Barthélémy jaar bi mu waxee na ko Tanor def premier ministre na def Tanor def ministre Tanor bañ mu langal ko Khalifa Sall bo ba léegi nangul baye Khalifa Sall comprendre nga amul benen nit bu dul Khalifa Sall bu koy Khalifa Sall di bàyyi muy daanu comprendre nga ok yow peut-être problème yu moom ak justice bi peut-être mandat wu maire am bëggul ñu envoyé ko délégation spéciale peut-être mandat wu député am yooyu lay protéger mais gëmal sa bopp peuple bi la fal tey lu la dal ñu protéger la Sonko mu ngi ni est-ce que. sénégalais yi patriote lu mu laaj dañ ko koy defal suba bu xëyee laaj trois cent millions patriote yi génnee ko ci vingt quatre heures pourquoi parce que li mu ji sénégalais yi la li mu leen won li mu leen wax ñuy dégg constance bi mu am dépuis mu commencé dugg ci politique loolu moo convaincre sénégalais yi ba tey ci gëm rek conviction gëm rek lañ teg ci lu mu laaj lu Pastef bëgguñu jox Pastef militant yoo koy financé et dañoo am plaisir u financer ko ça lay fait plaisir de participer pour Pastef dund pour projet bi dund loolu rek ça montre ni booy déterminé loolu rek ça montre envie wu changement bi ñu bëgg bu ñu demee Sénégal nga xam politiciens yi ñoo doon jox xaalis population pour ñu voter leen léegi population bi ñoo yëpp ñoo tànn benn rek ci politiciens yi di ko jox xaalis kooku waroo ko sax waroo dof sa di ko laal kooku ay millions de personnes ñoo ko protéger pas bëgg rek de mais dañ koo protéger même ak leur propre alal te booy yu koy jox xaalis yu su bëri ñu liggéey mais il donne leur mille francs il dañuy daj seen kondaana joxe deux cent ñi téeméer multiplié par million de personnes mu nekk ay centaine de millions boo amee nit bu mel noonu mu nekk sa rival politique da nga koy considérer ko da nga koy a def yenn yi parce que mbooloo mu taq moo nekk ci ginnaawam. mbooloo mu takku moo nekk ci ginnaawam te dañ ne borom mi mbokk kenn du ko jëw wolof léeg-léeg dina wax mais gars yi dañuy déglu rek mais duñu dégg wala dañuy dégg te duñu déglu ma ko reculeel reculeel balaa muy trop tard quoi donc ko sekkal ñu déterminer fu mu toll ne mënutuñ quoi mënutuñ gars yi pas accepter sa sa sa sa affaire do raam yi ngay def mënatuñ ko accepter kenn du la ko accepter té dégoûtant té dégoûtant en ce moment ñi la ñu su je parle avec eux té les ils te détestent mais ñu ko wax il peut pas ñu ko manifester té les dégoûte té dégoûte ton entourage en ce moment té les dégoûte laajal sa renseignement généraux té les dégoûte té dégoûte les sénégalais kenn bëggatu la kenn fonkatu la kenn respecteetu la ay nit yooyu fay rek ñu lay waxal ñoo fi nekk mooy journaliste naa fekk yi mooy yenn magistrat politicien yi mooy yenn homme de tenue imbécile criminel comprendre nga waaw ah, te gis nga dafa am benn xeet boo xamante ne ñoom ñoo nekk di trahir waa Casamance xam nañ leen loolu dañ ci def émission spéciale ñu wax ci waxam du moment bi quoi dafa benn xeet bu nekk Sénégal nekk biir Casamance bu mën ñom dañu bari ci armée bi ak ci gendarmerie bi surtout dañ nek di def liguey bu salté en ce moment faites attention parce que bu féké ci ay xërëm ngén yaakar ak ci sen tour yoyu non ah bu féké lool ngén yaakar da ngeen xamné amna ño xamanténi tour du len japp amna ño xamanténi bo len touré rek da nga tuuru lépp lu bok ci yow da nga tour parce que da ngeen amé ay tour la ñeneen am ay tour nee na amee ay xam-xam la ñeneen am may xam-xam am ñoo xam kenn du leen laal yéen a ngi def liggéey bu dégoûtant xam nañ da dañuy bañ a wax nag parce que lépp luy yàq man Ousmane Ba lépp loo xam day tas xeeti Sénégal je l' toujours évité képp ku ko fi jéem a essayé tam saaga naa sa mbay je l' toujours dit duñu nangu benn nit jaxase ethnie yi biir Sénégal Sénégal rek la ethnie yi wul te masi maki loolu la nek di def moom ñom ñoo créer sa maki fu mu toll ni désordre le bëgg bir Sénégal mais xaré wuñ won ni détermination mi peuple bi déterminé wu ni parce que ñom dañ doon jëme intimider peuple bi ba peuple bi ragal ba kenn du ragal wax kenn du ragal genn kenn du ragal def dar après ñu la def lu len neex dañu am surprise fu mu toll parce que xam nañ peuple bi paré nañ pour dé

wala ngeen may ñu jàmm ñu continuer suñu liggéey tranquillement yéen ngeen continuer seen liggéey ko munu leen ko ñu ñàppanta ay nday rek fu mu yem neex amul problème mais on est prêt donc Macky Mati sax laa lay parce que yow góor jigéen bu bon nga ma ne xoolal yaay choisir yaay choisir quoi